ñuy dalal tey euh, sëñ bi euh, Claude Demba Diop euh, jiite association meunier et industriel du Sénégal ñu lay nuyu di la dalal ci réew mi FM. maa ngi leen nuyu bu baax. Mhm. voilà ñu déggoon leen bu yàggul rek ngeen am benn génn def taxaw seetlu ci seen situation jamono ji lan moo xew. waaw xam nga li nga xam ni moo indi maanaam jooytu bi. Mhm. mooy dañu xamatul fu ñuy teg suñu tànk. Mhm. xam nga euh, daaw amoon na benn euh, waxtu boo xamee ni euh, gisoon ngeen nit ñi bankoon seen loxo. Mhm. parce que booba dañu jàppoon ni di jaay di perte xel mënu koo nangu. Mhm. dañu toog ak état bi ñu xayma li nga xam ne moom la saaku farine waroon a jar. ñu jàppoon ni mi ngi waroon jar dix neuf mille deux cent. Mhm. waaye état bi ni nu ah comme euh, ñun ñooy joxe njëgu njëgu saaku farine. Mhm. ñun euh, nee nañu bu leen dépassé seize mille six cent. ñu ngi leen déet mënuñu mënu leen nangu nii mi ngi jar dix neuf mille deux cent. Mhm. bu paree ñu jaay leen ci seize mille six cent loolu xel mënu koo parce que ñun mënuñu di continuer suñu activité ci loo xam ni euh, jëmul kër. bi ci tolloo ministre des finances woonu euh, ne leen déet yéen tàmbaliwaat leen seen liggéey waaye comme administration dafa am yoon. Mhm. feeg bataaxal bi leen di may ngeen jaar dix sept mille deux euh, dix neuf mille deux cent génn. Mhm. Euh, man lépp lu ngeen jaay maa gàddu maanaam différence bi maanaam diggante seize mille six cent dix neuf mille deux cent bi. kooku mhm. man maa koy gàddu. bañ ko bañ ko xaymaa muy quatre milliards et nangam. boobu ba léegi ñu ci topp. Mm-hmm. diggante bi euh, guerre bi ñëw. Mm-hmm. bi guerre bi ñëwee euh, xam nga rek euh, àddina bi moom lu ñëpp soxla day jafe am. dëgg la. léegi nag jafe-jafe boobu moo tax blé bi daan jar trois cent vingt cinq. Mm-hmm. yéeg na ba tey dépassé na sax cinq cent euros. léegi nag état bi ñu man comme dama jàpp ni dama war a askan bi dara waru fee yokk. yéen góorgóorlu leen ba continuer leen li ngeen di jënd waaye euh, li nga xam ni moo ci yokk mën maa koy gàtt mm-hmm. ñu ni kon baax na ñu tàmbali liggéey bi depuis mars mm-hmm. li nga xam ni moom la ñu gàdd ñun ca ca la nga xam ni moom moom moom la la état bi waroon jël mm-hmm. boobu ba léegi ñu ngi ci dóor mu mënuñ ci jot ba tax na li nga xam ni moom moo ñu mën a may ñu mën a commandé yeneen bateau dafa dafa commencé néew parce que amatuñ ko ñu ni nag léegi nii bu fekkee état bi fayu borom ñun doo ci ñu mun commandé parce que dootuñu am xaalis bu ñu commandé donc mbir mi yëpp loolu la. donc ci xayma ñaari bor yi ñaata la leen dikkee. waaw léegi tey boo jëlee bor bu njëkk ba maanaam bi nga xam ni moo doon ci quatre milliards bi mhm. soo ci tegee euh, bii nga xam ni moom mooy euh, ci importation blé bi. Mhm. toll na lu ëpp dix milliards maanaam euh, onze milliards la gën a jege parce que dix milliards neuf cent la. Hmm. donc tey boo boo maanaam boo dankee ñaar yi. Mhm. day toll presque quinze mhm, mhm, quinze milliards daal ñaari bor yi. ñaari bor yi mu ngi noonu. Oh, voilà tey euh, ñu dellu waat ci euh, parce que wax nga ko am na benn contexte bi nga xam ne fekk na leen ci ay jafe-jafe muy guerre bi am ca Ukraine tey lan lañ mën a jàpp ci ci ci situation nan ngeen di dundee ak euh, jënd beek njaay bi ci Euh, fànn yooyu la. non dafa tar dafa tar tar na tar boo xamee ni tey xam nga bu dee euh, Ukraine ak Russie ñoom kese euh, daanaka bu njëkk ñoom kese daan nañu jox addina bi presque trente pour cent ci blé ci àddina bi. Mhm. xam nga ñooñu tey bu fekkee ni dañu bank seen loxo ñëpp dañuy riirandoo wuti fa nga xam ne foofu la nekk. loolu mooy indi nag jafe-jafe pour na pour nga jot ci parce que ñu lu ñëpp soxla rek day day commencé di di métti dafa mel ne fii Sénégal rek. Mhm. bu ñu la nee mi ngi bëgg a ñàkk Euh, yëpp a yokk. dëgg la waaw loolu nag moo indi blé bi jógee trois cent vingt cinq yi xam ne moom moo moo tënkoon prix mburu ak prix wu farine. Mm-hmm. tollu tey presque lu ëpp cinq cent euros. Mm-hmm. maanaam bërkaat yi démb nii ba ñuy xool cotation yi. Mm-hmm. ñu ngi gis bés bu nekk day yokk. léegi nag euh, yokk boobu mooy indi jafe-jafe bi nga xam ne ni moom la ñu nekkee parce que non seulement am ko yombul. mais njëg bi itam dafa yokk. léegi nag plus ñuy xaar. plus muy yokk plus nag ñuy sonal askan bi bu paree nag di di sonal état bi bu fekkee état bi moo ko dara a gàtt. yéen ba ngeen ba ngeen dalee yëglu yàgg na euh, yaa ngi koy wax situation yi bokkuloon ndax fekk guerre bi egseegul euh, tey ndax stock gi fi nekk euh, néewul lool ba mu jar ñun sénégalais yi ñu tiit ne boo mayul dina ñu xëy rek ñu ne ñu blé amatul donc farine du am. waaw xam nga xam nga ñun gis nañu mbir mi xam nga am na benn comité boo xam ni day dajaloo euh, maanaam altine bu nekk ministère du commerce daf koy daf koy daf koy. Hmm. daf convoqué. Hmm. Euh, li nga xam ni moom mooy bébétam mooy xool ndax lépp luy dund fii ci Sénégal ndax hmm. dara manqué wu fi parce que objectif yi moo doon pour dara bañ fee manqué mooy benn système de comité de veille. comité de veille boobu mooy tax état bi di natt euh, li fi dugg si ak lan moo fi nekk. mais dañu jàpp ni. bu fekkee teelu ñu ci jóg mhm. dina am waxtu boobu xam ni dana metti ci ñëpp mhm. dina metti maanaam ci ci ci ci ñun ñuy jënd parce que ku doon jëndee trois cent vingt cinq mu toll cinq cent mhm. te mu wóor ni plus ngay xaar mu gën a yokku boobu déjà jàpp naa ni pertement dikk na parce que loo mun a jëndee cinq cent nga na ko jënde six cent wala nga nar ko jëndee lu ëpp loolu soo ko boo ko mënee teel jënd muy gën nga maanaam aar sa ñaareel ba mooy même bu fekkee ni état bi ci boppam moom moo ko nar a gàddu maanaam bor bi day gën a métti ci moom. Mhm. bu fekkee ni nag itam dañu ni ñun ñoo ko nar a jël maanaam askan bi lay gën a métti parce que bu boobaa dañuy def comme réew mi yi ñuy wër. Mhm. maanaam ñoom euh, état bi dugalu seen loxo état bi dafa ni rek ngeen jënd leen su ngeen jëndee ngeen jaay li nga xam ni moom méngoog li ngeen jënd. Mhm. bu ko defee booba saaku mburu fu muy toll dafay day metti loolu. te saaku muud bu méttee da ngay jàpp ni boulanger bi nga xam ni te lay jëfandikoo pour génne mburu mhm. euh, boobu day gën a tar ci moom donc farine bi plus muy yokk rek mburu bi ji gën a yokk mhm. te jàpp naa ni bu fekkee ne mun nañ ci moytu lu lu mu gën yàggee rek muy gën ci ñëpp. tey euh, euh, li nga xam ne mooy njëgu blé bi ay phénomènes yu bëri ñoo dajaloo tey ngir mu am bouleversement ndax jotul yéen ñi euh, di meññee yi nekk fii Afrique ngeen yem Afrique changer ay destination yu ci mel ni Éthiopie. non man kay waxuma ma waxu Sénégal xam nga xam Sénégal fu nekk ni moom mënoo xalaat ne suba loolu mën naa nekk mais en attendant li mën a ne mooy nga jëli ko fi nga xam ne. nee nañu am nañu autosuffisance doy na ba ñu mën cee jaay. non xam nga euh, nit ñi moom léeg-léeg dañuy wax li la neex rek waaye xam nga ñi ki ki yor usine am bi jënd. Mhm. moom fu mu gën a baaxee gën a yombe foofu lay jëndee. Mhm. c'est-à-dire que ñun africain bu fekkoon wóor na ni Éthiopie bi. Euh, lañ ciy xaar gis nañ ko fa prix bi njëg bi itam moo gën a yomb bi bi bi Ukraine di jaay wala bi Canada di jaay wala bi États-Unis di jaay gisuma mm-hmm. Mm-hmm. lan moo war a tax borom usine ba dem di ko jëndi foofu te fekk am na feneen bu mu ko mën a jënde bu ko gën a jege mm-hmm. mu yomb kon pour man damay jàpp ni xel war na mën a nangu bu fekkee jëndi wuñu ko foofu rek dafa fekk ni gis nañu lu gën ci qualité gis nañu lu gën ñàkkul ci ci prix waaw pour man loolu mooy wax ji maintenant li nga xam ni moom la ñu war a euh, gëstu mooy li nga xam ne ni moom la ISRA nekkee fi mu toll nii bay wax ni jàpp na ni war nañ fi mën jëmbët jëmbat mhm. te war nañ fi mën a am li ci soxla. Mhm. bañ ko déggee ñëpp a tàccu ñëpp a mhm. te jàpp naa ni ñun ñii di di di ca ca réunion ba bañ ñu ko yëgalee nañ leen bu fekkee ni am na gis nañ ko. jënde ko fii mooy mooy gën a yomb ci ñun. Euh, mooy gën a neex ci ñun. Mhm. di ko jëndee di ko bi bi tey dafa mel ni euh, yombal ko Afrique euh, dafa mel nii dañ cee taxaw jamono ji ndax semaine africaine bu UNESCO ñu ngi ci doon waxtaanee blé bi wax sax ne seen mbébét mooy ak yi wala production yi yi ñu dëgmal ñu amal trent huit millions de tonnes métriques Afrique su ko defee ñu mën koo permettre mu demal boppam ci wàllum fourniture blé tey yow mi meññee. nga dégg euh, information boobu lan la lay def. Ah, gàcce gàllaama rek dama naan euh, maanaam waxtu bi jot na parce que xam nga rek ñun de dañoo nattu nattoo lu bari. maanaam ba ci suñu lekk suñu doxalin. Mhm. lépp dañ koy roy. Mhm. ba tax euh, dañoo yàgg di dépendre ci extérieur. Mhm. bu fekkee dem nañu ba maanaam suñu njiit yi ni léegi jot na. ñu mën a di di dundee li ñuy bay mhm. loolu dañ ciy sant suñu borom bu baax parce que euh, jàpp nañ ñun ñun ñii peut-être dana jafe pour ñu am ko tey mhm. waaye ndaw yi fi nekk buñ ci jàppee jàpp naa ni loolu moo mooy li war léegi nag loolu pour mu mën a am nguur gi rek moo mën a taxaw daan ni ah ñun am nañu suuf am nañu ndox lañ ñee ñàkk sax ñun am nañ ko kon nag war nañu mën a demal suñu bopp loolu nag bu fekkee ni ah euh, maanaam nekk na suñu priorité euh, jàpp naa ni ñun ñi nga xam sax ñu ngi liggéey ci biir boobu daf ñu koy gën a yombal parce que nag tey euh, dinaa leen wax ni importation fi mu toll nii jafe na jafe lool tey pour nga am même gaal bu lay jëlee maanaam ay produit ci extérieur indil la ko fii la ngay daj doo xam nu mu toll. Mhm. bo duggee fii port nga xool. port bi toll nii ni mu xate nii euh, jafe-jafe bi ngay am pour gaal génn fi nangam nangam parce que ñoom itam ñu ngi ci réorganisation. Mhm. da ngay xam ni fitna boobu buñ la ko teggalee da ngay sant suñu borom. waaw gouvernants yi naam ñooy décider mais ndax yéen ñi acteurs yi euh, mettre ngeen leen la pression ba ñu xam ne li urgence la. non euh, urgence kay weesuwul lu ñuy daj ni ñu xam ni lépp lu ñuy wuti rek ñu ngi koy wutee bitim réew ku ne dugal ci loxoom man kay. fi mu toll nii jàpp naa ni ca réunion ba amul ISRA nit ñi wane nañu seen taxawaay daan ni lépp lu ñu mën a def en tout cas pour que loolu mënta am ñu ñu def ko waaye nag euh, li may wax ni mooy ak luñ ci bëgg bëgg def jàpp naa ni du ci benn at ñaari at ngay ngay mën a euh, am li nga bëgg. Mm-hmm. dama yaakaar ni yéene lay doon yéene yi nag bu fekkee nit ñi taxaw nañ ci yàlla mën na ko saafaraal. Mm-hmm. waaye nag bu fekkee ci kàddu la yam maanaam li ñu dëkkee rek moom la ñuy continuer. ba ngeen jàkkaarloog taskatu xibaar yeeg léegi lan moo ci am ci lu soppeeku yéen nag euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy tutelle bi. waa lenn bi am na mooy bés bi nga xamee ni dama génn noonu ci ci conférence de presse. Hmm. Euh, am na benn jataay boo xam ne ministre du commerce moom moo ko moo ko organisé woon ak ministre des finances. Hmm. Euh, ñu ñu boole ma ci. bi ñu demee waxtaan nañ ci ci mbir mi. Euh, waaye jotuñu ci xuus trop dañuy tout simplement lii ay problème technique la maanaam il faudrait que euh, maanaam service ministère finance yëpp taxaw mhm. ñu mën a xool fay bi naka lay demee ak naka lañ koy organiser lenn moo ci am mooy euh, li ñuy wax toujours état bi moom du yàkkamti mhm. fekk na ñun <laughs> fi mu toll nii ñu ngi sukuraat mhm. donc lii gën mooy mu gaaw waaye en tout cas yéene bi mi ngi fi te am na réunion boo xam ni ñu ngi koy séntu ci fan yu néew Euh, pour mun ci xuus bu baax. ndax du calmant rek parce que nag il faut le dire ay prévision la ba euh, euh, ba mu amee lu secoué Ukraine waroon nañ xam ne dina am ay répercussions ci coût bi donc est-ce que jàppoon ne ay calmant la rek comme d'habitude ah bu fekkee ni damay jàpp ci bor bi nga xam ni mi ngi mi ngi fi depuis décembre kenn mm-hmm. fayuñu ko mm-hmm. ragal naa ni foofu luñ jëm waaye nag bi li ci a metti mooy pexe dootul am parce que taxaw maanaam euh, bu ñu leen nee euh, yoreel nañ ne onze milliards fay ñu ko jàpp naa ni askan bi mooy gën a sonn parce que bu boobaa euh, commande blé bu amul gisuma fu ñuy jëlee lu ñuy defaree farine ba tax na boobu askan bi dina dina ko jëkk loolu tey jàpp naa ni mënatuñu xaar donc lépp lañ ci war a def yéene bi peut-être mi ngi fi. Mm-hmm. mën-mën bi moo fi mënatul nekk te jàpp naa ni fii ñu jëm mhm. daañu dem ba obligé euh, maanaam njëg yëpp yokku mhm. parce que lii état bi bëgg gàddu dama regal ni euh, ci diir bu gàtt euh, dina teel a toqi parce que fi mu toll nii ay dige la te dige am na àpp te loo bu bu waxtu ba jotee jàpp naa ni kenn dootul mën a nangu li ñuy teg ñu continuer. ñu lay jaajëfal bu baax a baax sëñ bi euh, Claude Demba Diop nga jiite association des meuniers et industriels du Sénégal. merci beaucoup maa lay sant di la gërëm bu baax.